30 jours donc 1000 francs vous travaillez dans le secteur de la santé à la, à la fin du mois vous avez 30 000 francs chaque jour 1000 francs chaque jour 1000 francs vous, vous pensez que lii mën na nekk lii léegi ñu ne ñu ne ñun léegi léegi li garaaw ci mbir mi li garaaw ci mbir mi ñu ne ñun dañoo bëri wax. Ah, am na benn kilifa bu ma ko wax démb. non mais li ñuy kaas dafa bëri sama rak tuuti dañuy kaas rek quoi. kilifa la de donc moom moom moom il est tranquille quoi ça va. booy da ngay kaas nga bàyyi kaas kon. xool c'est-à-dire ak cër bi ñu koy bi ñu koy jox. nanoon na ma baal bu mu maa seetaan kilifa bi billaay mais moment yooyu da nga koy xeeb parce que da nga naan c'est dommage kii nga xam ne moo waroon impulser sax kaas bi non c'est c'est la vie c'est comme ça adduna nii la xam nga dans la vie aussi on ne peut pas tout avoir moom il est tranquille ah moom ça va moom y a dix ans il n'était pas tranquille parce que beneen góor fi waaye moom newoon bi il est tranquille non mais tu sais xam na aussi adduna noonu la xam nga tey xam nga la vie c'est loolu mën naa continuer xoolal ndaw si li mu wax. nga ni ñoom ñi jógee Dantec ñaata la ñuy fayeeku. tante mi la wax ay pere de famille ay mère de famille sant sant Colobane boobu. ñoom ay la lañ ay docteur la. am na si ñoo xam ne docteur lañ am na si ñoo xam ne infirmier lañ am na si ñoo xam ne nangam ak nangam. Hmm. c'est-à-dire que. mille francs 1000 francs par Sénégal xam nga SMIC boo xam ne mu ngi ci 60 mille francs laaj leen tubaab yi ñoom ñu ngay yokk seen SMIC ñu ngi ci mille trois cent euro defe naa yokk na sax vingt six plus lañ ma wax keroog. ñun suñu SMIC mu ngi ci. soixante mille. Oh, ñun soixante mille bu baree ba bare cinquante mille soixante mille. waaw léegi soixante mille francs CFA. yow yow studio sax studio sax studio studio Dakar ñu ne la cent cinquante mille ab studio. léegi lii nii nii nii nii nii ba kañ donc Aristide Le Dantec scandale la boo xam ni yàlla rek xam nu mu toll mais les gens forcent kilifa yi dañuy forcer dañuy toog seen group groupe lañu doon quatre cinq personnes toog bon je pense que daal nag yëngal seen ay notaire yëngal seen ay huissier yëngal seen ay avocat yi xoolal ñu nekk benn groupe ku nekk war cee am ñu séddoo ñen ñi ne ca boppa ñu la def ya bon moo tax yàlla nag moom fa mu leen di xaar fenn la àpp ba da ngay judd dund dem yàlla na dem bi rafet na bu ko lii moo xew ci Aristide Le Dantec coow lu bare bare entre médecins entre dans la corporation problème sur problème da ngay jóge hôpital Dantec nekk fa docteur wala infirmier wala neen war a dem ci beneen centre de santé na nga fay fekk ña nga fay fekk ak na ngeen di nekkee intégration ba jafe-jafe ya. Mm-hmm. ñëw naa aw ma bureau dama war a am bureau Dantec amoon naa fa bureau fii dama fa war a am bureau il me faut un bon bureau non monsieur il bon bureau ici il va falloir euh, guéguerre nan ngeen di loolu nan la maladie di fajoo il vont assassiner énormément de compatriotes malheureusement. ñoo xam ne du duñ ko yëg démb yëg nañu ñaari décès mais dañoo yëg yeneen yi léegi les malades vont devoir se retrouver chez eux demal fii non non fee ngay dem non maa ngi fii kii mu ne këndëng yéen nag nguur et eh, nguur nguur un état qui ne protège pas ses compatriotes qui ne protège gaawtu bi yëpp moo indi problème bi yëpp bu ñu defoon ndànk rek def ko progressivement. jël seen temps def ko correctement je pense que problème yi ñu am yépp duñ ko am et yii waroon nañ ko mën a anticiper nag vraiment parce que gaawtu aussi lii lay jariñ li olof naan boo nee tekk tekk woon la yoon mais mbir boo ko bëggee parax paraxee lii lay jur et c'est dommage xam nga gis nga système sanitaire Sénégal moom nabu. Mm-hmm. Euh, man dama def constat boo xam ne peut-être je suis le seul. Mm-hmm. mais constat bi ma def d'abord mooy boo demee di faju ñi lay faj ci condition yi ñu nekk day gën fuuf condition ñuy ñëw di faju xam nga li ma wax maanaam ñoom fajkat yi ci ay bureau climatisé la ñu nekk salle de consultation yi climatisé ak yooyu mais génnal ci couloir yi nga xool malaat yi am na ñoo xam ne salle yi ñu nekk ay ventilo sax amu fa ba bañ fay monter ay kilim am na ñoo xam ne ci couloir yi lañ leen di tëral parce que salle yi fees na. Mhm. donc liñ ci war a laaj dafa baree baree baree baree bari ba nga xam ne tey foofu rek problème ya fa ne kenn mënu koo régler yow nag léegi nga ñëw dolli leen ay problème mooy parax paraxee précipitation ngay précipitation bi moo indi problème bi yépp nga am 6 hectares tan moo tere nga tabax ci 3 hectares yi jël transférer ay services jël trois hectares yi ca des xaarandikugum tàmbali defaraat rénover wala nga toj defaraat ça de toi comme euh, trois hectares yële xaw euh, vide na d'après nit ñi wax lan moo fi jar lii yëpp bay génne ay malaat am ñoo xamante ne démb ci yoon bi yow am nga euh, message boo jot am ku ne dafa ñàkk bakkanam te ci ñu jëlee foofu hmm. génne leen ci la bokk. keneen ak keneen di témoigner. dëgg la. conséquence la ngay dem ba yow dootoo xamante lan lay niroon. waaw mooy conséquence su précipitation bi la rek maa ngi profité di jàllee sama tonton Khalifa Thiam effectivement am na benn euh, mbokkam bu desee de koo xam ne Dantec la nekkoon. donc loolu je pense que tamit conséquence su précipitation bi la dañu waroon jël seen temps bañ a yàkkamti dek teg affaire yi dans les règles de def ko ni mu waree. mais gaawutu ñu génn nit ñi patam patamee leen yóbbu leen ci ay structures yoo xam ne déjà la fa nekk si ay problème rek kenn mënu ko régler. kenn mënu koo régler tey malaat bi condition yi yi malaat tey moo war a gën a nekk gën a baax ay condition ci bërëbu fajukaay mais demal nga wër hôpitaux yi nga xool condition yi malade yi nekk am na ñoo xamante ne sawaay lal bu ñu tëdd sax amuñu ko ci couloir yi wala ci banc yi lañ leen di teg fa la ñuy tëdd ñuy tëdd ci suuf parce que salle yi fees na lal yi doyul léegi yow nga am espace Dantec nga ne da koy jaay yow li fi jota ne doyul dolli woo ngay ngay gën a wàññi lan moo tax boolewuñ tabax lépp te li ñuy rénover nañ tabax hôpital bu bees tax am nañ espace donc yàkkamte bi wax naa ko démb pour man vraiment gouvernement bi dafa war a communiquer aussi wax dëgg sénégalais yi. wax leen dëggantaan li na ci dossier bi. parce que patam patamee génn bi leeru jaay bi aussi leerul ñan lañ koy jaay ci yan condition lañ koy jaayee lan moo tax ñu war koo jaay. Dakar fii daanaka dafa fees tey boo bëggoon tabax hôpital fii foo koy def foo koy def léegi yow nga am 3 hectares nga ne da nga koy jaay. doy na dolli ko ci la fa jot a nekk tabax ngan di dofu hôpital ah à côté mais gis nga système sanitaire bi franchement. nangu mais mais mais tabax hôpital bu bu mag sax gis nga daan teg ni mu toll. te te liste d'attente bi ëpp ñu nekk ci biir. waaw déggoo li ma la wax parce que gis nga santé. service la boo xamante ne tey état moo am obligation faj ay doomam. Mhm. loolu droit la boo feebaree da nga war am droit faju moom nag moo ciy teg la mu cay teg ay da ngaa war a jënd lii pour faju da war a dagg lii pour pour pour faju yooyu déjà dañ ko war a dindi réew mi ku fi amul xaalis boo boo woppee boo amul chance dëgg da ngay dee de da ngay faatu <laughs> li tax ñoom patron yi bu lu leen dal rek ñu dugg avion dem bitim réew lan moo tax mënuñu ko mënuñoo toog fajoo fii. parce que xam nañ ne plateau technique yi du benn et pourtant ay nit rek la. Mhm. ay nit kepp la fii ay nit lañu fiy bàyyi fañ jëm di fajot ay nit lañ fay fekk te fii suñu école yi surtout surtout Fann gi tey bëri na ci ñoo xamante ne la sous-région ñu bari fii la ñëw di jàng dañuy pare dem seen dëkk yi ñu ci bari demal demal hôpital Fann nga xol man nga fa croiser ay nit ñoo xam ne ay xonq nopp lañ dañuy sol blouse ñu ñëpp. Mhm. donc bu ñu bu ñu defoon li ñu waroon def kenn du fi jóge ci ñoom naan dangay dem faju ci Europe fii la ñuy fajoo mooy lajj gi ñu lajj. yow bu fekkee da yor réew l'hôpital boo yoree réew non boobu moom peut-être après dañ ci def gëstu. Mm-hmm. dinañ ci def gëstu parce que man dégg naa ci version yu bare bare bare bare bare ñu ne pare nañ ñu ne parewul ñu ne le ah. yooyu moom ay gëstu lay laaj quoi mm-hmm. mais santé Sénégal problème ñuy am nii wax dëgg yàlla war nañ ko mën a dépasser. waroon nañ ko mën dépasser mais tey pour man système bi moo baaxul kii ndaw si li muy wax fii dafa daw yaram paiement bi bu ñu ko waxee c'est tooguñu fi pour dévoiler salaire nit ñi mais secteur yooyu ñi fay évoluer dañ leen a waroon a mettre dans de dans d'excellentes conditions ba ñu am xel mu dal pour faj nit ñi. yow mënoo nit ki ñëw am lu koy metti mu yaakaar la te yow mi koy faj yaa ko gën a feebar. noo koy faje feebar bi mooy yow déba condition ñu la teg baaxul li ñu lay fay baaxul tu as tous les problèmes du monde door mais mënoo liggéey ak ak ak ak ak ak xel mu dal. mun ta ne. stress rek ah, moo tax moo tax Dantec bi man deux choses laa jox benn. Mhm. nañ précipitation bi c'est trop tard malheureusement. Mhm. c'est trop tard parce que ñi dem nañ ba pare leerul du tax ñu patam patame nit ñi génn leen génn leen 15 août 15 août ñu tëj hôpital bi beneen bi mooy lan moo tax ñu war a jaay.